jiite am ci ñoo xam ne ànd na nag yow am ñoo xam ne ànduna ak yow ci sa politique te ñiy ànd ak yow sax ñenn ñi di rafetlu ay pas yoo xamante ne yaa ngi koy teg ci sa liggéey euh, ñoo xamante ne jàpp nañ ne sur le plan social am nga leen am nga taxawaay ci ñoom ñoo xam ne jàpp nañ ne yaa ngi am ay initiative yoo xam ne doo koy teg en tant que maire li nga war a def mooy renforcer bëgg-bëgg boobu war a dox ci sa diggante yow ak askan xanaa xamuloo ne maire moo gën a jege askanam normalement maire localité war na nekk koo xamante ne bureau boo fay dugg sax soxlawul rendez-vous. Mhm. ña dëkk ca askan wa ak ñi nga boot ak ñi nga jiite war nañu mën a am accès ci yow. ci sa bureau ci mbedd bi ak fépp fu ñu mënti dajeek yow mooy ne njiit day wàccee boppam. léegi nag beneen bi ci topp mooy ne nekk njiit c'est un fait pouvoir gérer li ñu la jox c'est un tout autre fait. Mhm. te Alioune Ndoye nii nga xamante ne doxale na ko ak marchand ambulant yi nga xamante ne ñoo nekk Dakar Plateau bu dee dafa yaakaar ni. ci ni mu ko bëgg a defee akub xadar noonu lay réussir aujourd'hui opération de déguerpissement yoo xam ne waxuma maire de waaye njiitu réew ya fi nekkoon. Mhm. amul kenn ku ko ci réussir te ku nekk boo ñëwee essayé nga tante nga. Mhm. kon nga war a xam ne cette méthode là elle ne marche pas. Mhm. l'arrogance n'a jamais payé dans cette vie. l'arrogance ne paie jamais dans cette vie. dafa am loo xamante ne boo ko fi fekkee mu dem ci am réew ba mujjee nekk ab tradition. li la war mooy d'abord nga waxtaan. effectivement c'est le premier acte à poser. Mmh. bien qu'on est d'accord que te ñoom ci seen jëmmi bopp xam nga ne foofu ñu toog noonu gën a lu leen de. Mm-hmm. ndax ña fa toog am na ñoo xamante ne jàng nañ ba yooyu yeey seen i këyit am na ñoo xamante ne njaay la ñu xam dañoo jóge ci boutique mbagg ba am seen cantine ñeneen ña ca topp dañuy daw di wuti lu nu am pour yóbbu ko ci seen i kër te loolu dafa am situation ak contexte bu ko yóbbu. situation ak contexte boo xamante ne la vie est devenue tellement difficile au Sénégal rawatina à Dakar parce que mm-hmm. Dakar fi la ñëpp concentré wu mm-hmm. ñenn dañuy jóge ci seeni village jóge ci seeni gox yaakaar ne bu ñu ñëwee Ndakaaru dinañ fi daw am loo xamante ne ni daañu mën a yóbbante seeni njaboot ñeneen ñi am na ñoo xamante ne ils sont de Dakar Plateau mm-hmm. foofu la ñu dëkk seen gox la te kan lu ñu fa dëkk nag wax dëgg yàlla ñoom ci seen jëmmi bopp bëgg nañ faa nekk à l'aise kon contexte bu difficile moo yóbbee ñenn ñi xëy na amaana. ñuy def loo xamante ne c'est dans l'illégalité. Mm-hmm. illégalité boo xamante ne yow jibi mm-hmm. mairie ba da ngay dagg juuti dafa ngay toog. waaw kon kay yow la fa nekk yow yaa ko avalisé. loolu moo gën a bizarre. mais loolu yaa ko avalisé. Mm-hmm. parce que bu fekkente ne yow da ngay xeex loo xamante ne jàpp nga ne dëppoowul ak yoon. warul mën a am benn appui mairie c'est-à-dire dans côté ou d'un autre. Mmh. on ne peut pas vaincre l'injustice en faisant nous-mêmes loo xamante ne ay actu yu injuste la. te injustice bi nag euh, du ne tey jii da ngay xëy rek bëgg a déguerpir nga ne naa xëy rek uti ay volontaire benn ñaar naa ñëw toj seeni i ci loo xamante ne yow sa ñaar fukki dërëm dugg ci nga toj seen i bagage yàqal leen loo xam ne doo leen ko rembourser ëllëg soi-disant parce que da nga bëgg rafetal ak taaral. Mm-hmm. et puis maire Alioune mu xam ne itam mënul poser benn jalon mënul liggéey dara. te état bu Sénégal jàpp ci bien que li jëm ci wàllu déguerpissement ñoom dañ leen ko dénk ñoom ñi nga xamante ne ñoo yore mairie yeeg yeneen ya ca topp mais ce serait bien d'avoir l'appui de l'État et loolu warul am benn connotation politique c'est-à-dire maire bi important parce que am mm-hmm. na ñu jàpp ni euh, yenn maire yi comme pour l'instant nii ñoom ñi ngi ci opposition bi appui bu ca war tey ji war a jógee ci gouvernement bi amuñu mm-hmm. ko surtout ci li nga xamante ni concerné na kaw Sandaga mais du noonu lañ ko war a xeexee parce que man gëm naa ni xanaa dama yaakaar ni ñi fi nekk jore réew mi ay boromi xel lañu war nañu mën a dissocier loo xamante ne maanaam seen yëfi bopp la ak lu ñu bokk ak ñëpp euh, te aujourd'hui ces maires là mais askan moo leen fal Alioune li ko def maire du ay jinne du ay dëmm ña nekk ca localité ba ñoo ko xool mu dal seenub xel ñu def ko maire gox ba mu nekk fa di fa liggéey. naa ji ne dañuy kon nag qu'il soit d'un parti politique ou d'un autre waruma man Mamy Samba am sentiment ne lii dafa mel ni ab sabotage da cee rax mënuma am sentiment ne wax dëgg yàlla kii dafa bëgg xëy rek pour indi ruube parce que xam nga tey jii man li ma comprendre mooy ces actions de déguerpissement la hmm. nga xam ne dafa jékki-jékki rek maanaam juddu rek et puis xew mel ni comme ay pignon de rue un tout petit peu partout on ne parle que de ça Colobane Kër Massar mu mel ni dañuy wootante téléphone rek ne bu subaa yaa hmm. mënuma ko comprendre Alioune Ndoye lan moo ko empêché aujourd'hui mu démarrer ak ay concertation bu concertation yi euh, demul qu'il demande l'appui de l'État bu boobaa nag bu demee ba seetlu ne wax dëgg yàlla saisir na leen et que ñii defuñu ay jéego ci mbir mi ni mel toujours il y aura une solution pour ñu mën a jóge ci li nga xamante ne moom moo wàllu déguerpissement parce que li leer mooy xale yi nga xamante ne fa la ñu dëju toog mhm. <laughs> Penda Badji du xëy rek di leen wan ne man maay borom doole maa moom gox bi wala maa fi jiite looloo tax pourront régler le problème définitivement ah oui bien sûr parce que commerçant yi nag dafa bu ñu taxaw lañ taxaw dema mi mais commerçant yi ñooyee taxaw fu ñu taxaw Penda Badji parce que nag yëkkati nañu leen du benn du ñaar du ñett dëgg la naam waaye ba ñu leen yëkkatee fan lañ leen dugal waa Penda yow boo yëkkatee dara doo fa teg dara dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax logique pour logique boo yëkkatee nit ci bërëb day fekk ni yow def nga benn travail en amont travail en amont bi mooy nga ne bon site de recasement bii fii laa bëgg def képp koo xamante ne jaaykat nga. bañ leen fa yëkkatee woon ci yeneen i nguur. fan la leen yóbbu leen yóbbu leen ci ay site seen site bi fan la nekkatee woon sax Djiby Sarr. mais site <laughs> doon wax après dafa sore dafa sore dañ doon wax client yi duñ leen fa fekk. mais mais buñ leen yóbboo ci site de recasement xamatuma xamatuma xamatuma la woon buñ leen yóbboo ci boo xamante ne effectivement ñi duñ leen fa fekk ça n'a pas de sens euh, Penda. quoi qu'on puisse dire ñun ñii nga xamante ne ñooy kaas wàllum déguerpissement ak leneen lu ci topp mais ñun bu ñuy xëy di jëndi Sandaga la ñuy dem. Mhm. dëgg la wala du dëgg. Mhm. kenn ku nekk ci ñun boo xëyee di dem kolobaan ngay dem. boo waxee da nga naan tey Colways laa jëm ndax am na lu ma ci soxla ci wàllum dàll foofu laa ko war a mën a amee. am na ñoo xamante ne nii dugguñu ci butiku sàndaga yi de xam nga ci ñan la ñuy jëndee ñi nga xam ne ñooy wekk seeni yére seen i mbagg foofu la ñuy demee jëndi. Mhm. donc man néew li ñuy def yoon la de. d'accord naa ne fii fu ñu toog di di jaay jaaduwul ndax ma dama bokk ci ñi nga xam ne gëm naa ne bu ñu bëggee taaral image wu euh, réew mi et ñu tegaat lépp ci yoon il faut que kenn ku nekk ci ñun xam ne nag réew mi mbedd bi yi nga naan mbedd bi mbeddum buur la demeewul noonu. Mm-hmm. lépp dafa war a doxe ci yoon lépp dafa war a am ci yoon bu mu war a tegu. Mm-hmm. mais loo gis ci àdduna. Mm-hmm. penda bu dee sëy sax dañu koy waxtaane waxuma laak nag nga fekk ay ñoo xamante ne ni wax dëgg yàlla ñooy daanal seen bopp seen doole yaa ngi dégg lu nu am dagal la juuti jox la beneen ba ca topp nga bëgg xëy rek bëgg toj seen bagage bëgg yàq bëgg indi violence c'est-à-dire on Penda moom mi fi muy wax nii fu neex la de mhm. fi mu ko teg nii moo baax parce que question bi mu posé mu ne pourquoi gars yi ñëw rek cette série am de déguerpissement subitement c'est une question de buñ mérité ñu apporter ci des réponses mhm. lan moo tax dënge tëngeej le le le sous-préfet là est-ce que Tëngéej da nga dégg mu mel nii wala dara. parce que moom dafa am nu mu ko gérer waa ji dafa méthode bu mu koy defee. mooy da lay fekk fi nga mu waxtaan ak yow da ngay gis ñoo xam sax dañ koy pour une autorité am na nu ñu ko doon waxee day nduru sax ne euh, dañ koy manquer de respect mais lui da koy téye ah euh, je sais nag maa ngi lay dagg de. non foofu ko dugg baax na moom lu ko teree moom Alioune Ndoye defee ko nu mu la neexee rek ñun ah. lu ko teree moom personnellement mu defee ko comme na ko waajooju di defee. parce que lii comme ni ñu ko waxee xam la moo tax sànq li ma waxoon ñu bëgg ma bëgg ma teg ci baaraam mooy ne lii yàgg naa xew lan moo tax ci jamono yi le président Macky Sall. ah amul position bi mu am. <laughs> laaj ko ma laaj ko ma c'est une autre question laaj ko ma mami lan moo tax. mais man en fait loolu te Djibi merci pour cette pertinence là. parce que man je me dis Alioune Ndoye il était au pouvoir il était non seulement ministre, il était également maire cumul de poste s'il vous plaît yow nga am possibilité waaye na xam nga ku lajj ci wàllum pêche nag wax dëgg yàlla boo lajjee ci sa ci sa gox loolu du ñu jaaxal dëgg la. Mhm. nga ne lan moo tax réunion defu ko boobu ba tey. mu booba la gënoon a am doole ndax booba amoon na appui chef de l'État. ba pare nekk moom ministre bu rëy kay. déggoo li ma la wax waaye dafa lajj ci ministre moom lajj ci ministre moo tax xale yi jël gaal gi di ko romb ndànk moom xoolal Alioune Ndoye xale yi ñii ci bakkanam la ñuy romb di jël gaal di dem. lu ni mel kon ndax day dëggal ni. non gis-gis bi ñenn ñi am que am na ay maire yu nga xamante ni tamit actuellement dañoo nekk di ruube. waaw non ni ñuy ruube ëpp na man loolu laa gëm ba keroog may gis le contraire voilà peut être bëgg nañ pàccoxoo am ci diggante ñi nga xam nga réew mi. neexul waxante dëgg nag waaye nag tey nga dégg dëgg gis nga ñu ci bari ci ñoom amuñu problème ak président Diomaye maa la wax lii tey. benn nit moo leen jaaxal ci seen àdduna muy Ousmane ko bëgguñu ko supporté wuñu ko duñu ko duñu ko duñu avaliser lenn loo xamante ne ci ay mbiri boppam la maa xam nga ne ñoom jàpp nañu ne boo nasaxalee ay actions yi nga xamante ne gouvernement mu koy parce que créer ce a là mm-hmm. <laughs> mais parce que danga bëgg toog nga ne kon xale yi bu nu muusul tuuti ne ah régime bi ñoo ñu bëgg a jële fi ñu bëgg a jële nga bëgg jur kon féewaloo mm-hmm. ci diggante askan wi nga xamante ne ñoo voteel Bassirou Diomaye Diakhar fay ci suffrage boo xamante ne mësuta am Sénégal mm-hmm. nga nekkoon amoon doolay def ko ndax booba amoon nga appui chef de l'État tu n'as pas posé ces actions là mhm. nga bàyyi ba aujourd'hui ne nga yee yaay da ngaa ci wàllu opposition nga bëgg xëy ne déguerpissement ci dox gox bi nga xamante ne fa nga dëkk foofu la la fal mhm. maire mhm. y a des questions à se poser et puis tous ces déguerpissements là malheureusement yu ci ëpp ci ñoom ce ne sont pas des zones yoo xamante ne maire yoo ko fa occupé c'est des gens soit du Pastef wala de ñoom ci wàllub opposition bi la te ruube bi nañ ko arrêté te niñ koy arrêté rel rek la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko et son gouvernement ñoo mën a dakkal lii. Mm. gis nga du nu mën a liggéey dara ci réew mi jibi mm-hmm. bu fekkente ne ruubekat yaa ngi fiy nekk ba tey. xam nga ruubekat yooyu noonu dafa am foo xamante ne nii dañ ko waxoon ay temps dañu toog ñëpp di seetlu benn accalmie après bien sûr l' élection présidentielle ñu bëri di toog man ko mel ne ci man man dama ne nii la am réew dafay ànd ak dal ah boole ko naat. ah xol yi féex nit ñi bëggante teg ci am diine ma ne su ko defee xel yi day daal di sell ñuy waxtaanee xam-xam moytu fitna te te jàmm ma ne yàlla na jàmm yàgg dañ koy wax xam naa ne ni ma ko waxee noonu la ko nit ñu bëri di waxee temps yooyu noonu biñ paree ci jongante waaye teguñ ci quelque temps après euh, ñi nga xamante ne nii peut-être euh, dañu bëgg réew mi yëngatu ñuy dox ci jéego yooyu mais lu mu ci mën di nekk gis nga ay du yam ci bopp borom. Euh, mami am na sànq lu mu soulever loo xam te ne ni il faut que ñu koy waxtaanee ci ci réew mi mooy mënuma concevoir may fekk mami fi mu toog di fa jaayee ndékki chaque jour ma koy laaj mu may fay juuti di ma jox téeméer wala 400 wala 100 francs wala 200 mu ma koy jox chaque jour may jël di ko dugal sama poche mooy poche mairie bi je veux ba pare man man mi koy dugal sama poos ma boole ceeg arrogance gu miti miti miti ba tax jour bu ma soobee damay ñëw ne ko mami jugal fi nga nekk nii parce que fii dañ ko interdit alors que ba ngay encaissé xaalisu mami est ce que waxoon nga ko ne ko fii dañ ko interdit bul joxe juuti. jibi kay ma wax la noonu la ñu mel arrogance bi ñuy wane ci kaw marchand ambulant yi ils sont comme ça en fait mais c'est dommage de le dire mais régime bi fi jógee arrogance la ñu jiite woon réew mi arrogance la ñu yore. arrogance googu moo tax ñoom ñu ñàkk élection yi passé ndax dañoo bëggoon a wan ne nun dañoo am doole te daa am fu nu féete te kaay ma wax la boo nekkee ci nguur ak ba wàccee ci nguur du benn de ca peelu bi da koy yëg bu baax mm-hmm. ah surtout am na noo xamante ne na ko yore yow xanaa ñoom miir yi xamuñu ne <laughs> ba yombal xiyaam ñoom dañuy la yàlla suñu borom mooy ne maanaam góom-góomu bi nga xamante ne penda bat yi am na ko ba muy génn ni fakkastalu te yow meer boobu yaa ko yoroon tali ba yaa xoole ba mu ami crevasse ba penda dox ba fa kastalu ba oo moom xolleeku yombal xiyaam danga koy layoog yàlla suñu borom xamuñu loolu. waaw non non dama lay expliquer rek pour ñu comprendre ne. en fait gis nga sénégalais amal compétence. sénégalais jàngal boowal jantalal melal lu la neex mais boo amul considération ci ñoom duñu la faale duñu la wékk te duñu la respecter. ces gens yi nekk foofu. c'est des gens responsables. Eh. responsabilité mënta weesu nga xam li la war ci sa kër te ngay daw di ko wuti mhm. léegi nag ku nekkul ci yoon mhm. da nga am nooy jaar pour nga mun tegu ci yoon léegi qu'est-ce qu'ils veulent Alioune Ndoye qu'est-ce qu'ils veulent dafa bëgg Ousmane Sonko wàccaat demaat Sandaga waa xanaa kon réew mi kon nii rek lañ ko bëgg a jàppee saa yoo ñu xambee fenn rek kenn ne cëpp ne lay ne day dem fayitaal bi alors que ñoom ñëpp dañu war a contribuer euh, ci développement bi je ne comprends pas cet politique bi xamante ne moom la ñuy demee li ñu war a jiite mooy ne pend quel que soit camp politique boo féetee bu askan wi soxlaa da nga war a taxaw liggéey askan wi te ñun on a des problèmes de leader on a des problèmes de politique on a des problèmes de gens yoo xamante ne seen propre intérêt rek moo leen tax a jóg ak seen ay image ak lu ñu mën a ami suba te foog ñu xam ne askan wi la ñuy liggéeyal askan wi mooy jugé askan woowu faaw nga jox ko cër. Mhm. boo ko jaayee arrogance mu jaay la arrogance parce que courte queue se paie par courte queue. Mhm. mais mais mais mais Penda baal ma. peut-être ma ma terminer foofu mooy dafa am beneen affaire bu ñu jógee ci déguerpissement yi. Mhm. est-ce que xam nga ne les maires là euh, déjà war nañu waxaat ak ñoom ci beneen. ligne bi non mën mën ko ko jël soo bëggee. waa d'accord mooy. gis nga maire yi daawuñu rendre service gis nga buñ soxlawee askan wi. dañ leen di dañ leen di jaamu pas jaamu seen soxla mais ñoom la ñuy jaamu askan bi gis nañ bu élection maire di am ñii di saaf gerteeg ñii di yëkki fasak ñii di nekk ay receveur rek ñoom ñu ko bëgg a nekk mais gis nga bu pare inaccessible la ñuy def boole ceek itam di def loo xamante ne ni teguñu ko ci yoon moo tax euh, su fekkente ne régime en place bi bëgg na bokk ci mission yi nga bëgg na réussir ay mission lu mooy yi nga xamante ne ni teg nañ ko war nañoo xalaat itam mairie yu bëri ñu am fa des représentants. c'est important xam nga lan moo tax. parce que ji nga même ndox mii di am ci yenn ci ay gox. Mm. dëgg la de mm. euh, yàlla bokk na ci waaye dafa am place yoo xam te ne place ndox ñoom maire